<laughs> ndax dina son trop kon bu ko defee bu ko defee lu simple la dañu ni Seydina Aliou moo ma ubbil bunt bi ndax dafa comprendre moom te ku tedd ki moo ni uri li wacci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila ku tedd ki du ko jóg rek mu ne la yoon waa ngi nii déedéet aspirant bi aspirant véridique bi et intelligent kooku lay woon yoon moo tax jëwriñ mënta ñàkk njiit mënta ñàkk kii nag mën naa jiite jeunesse bi moom loo ci mën a dégg ne ko ma ñëw ne ko Seydina Ousmane Sonko manee d'une part ni ko keneen manee d'autre part waaw kenn ku ci nekk ak sa domaine ñoom ñëpp a war a nekk benn dànk te ñii fi nekk Macky président Macky moo ki collaborateur am ñu yokk yërmande ji ci ñëpp Serigne Abdou am na loo xam ne bërki démb moom mooy léppi Sonko te bërki démb laa koy soog a wax nee ko bi élection présidentielle yi jub si dafa am kilifa gu ñëw nettali ma ni dafa gént Seydina Ousmane ànd ak Ousmane Sonko ak ñeneen ñëw ci man taxaw ma taxaw mu ne ma sëñ Muntaxa laa xamul nu ma koy def loolu nag rêve la waaye gént dina am interprétation man lama gent tel son bop te sama gent man makoy koy interpréter sama bopp waaw bërki démb saxoo njaay yagul soxna fan ñang amna ku mo andal muy netti li gént ba egg ci nema élection di ñew dang ko wërta fekke waaye dana daanaka la Baba jo waxon mustafa Niass nima serigne gannaaw bi nangam dama ci dul jaar del la ak waaw aku lamara Baba Diaw bañuy wax ay affaire pétrole Baba Diaw ni ma serigne grand bi nangam grand bi day dell waaw lamara la ma wax léegi kooku waxoon loolu soxna Fane Niang bu tul moy jitu ndax man mom kenn duma ma yoy parce que man serigne touba mom wax li ma fi wara dund may li jeun kii ko mu yop ton ay election mënu ma fee ñàkk bañ a fekk na Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul ku jara moytu la deug la la amna luy tax ñu yok fan cause yo xamni day tax ñu yok su dund am cause yo xamni day tax ñu wañi ko lolu mom amna ñi jang alcorane ñepp xam nañ ko waye Modou Mbacké mi ñu wajal ko ba mu pare bay waji jëm ci liggéey man ci waajtaay rek la nekkon ci waajtaay kep kep la nekkon bi liggéey bi waja tambali lañu ma ilham ngir serigne abdou sama rakk ji doon sama nay bu wallahi duma ma man duma ma rew mi nak rew mi wax deug yalla lu simple la Seydina Aliou ni ngeen di def moy wati coalition du siècle yéen ñi nangul réalisme africain yéen ñëpp ngeen ànd ñi ko nanguwul ànd ngeen proposer ay élection anticipée élection générale ngeen proposer ko mu bañ a am parrainage ñaari candidat képp jàkkaarloo yéen benn képp ngeen di wut nan ngeen di wute benn da ngeen di wut fukk ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk carmbat nañ la xam nañ crit yaa ngi critères yi jiite réew ñu lot ma defal leen loterie waaw nga xam ni du ngeen def euh, comme ni américain yi di def di def ay primaire ak yooyu déedéet loterie lañ leen di defal fukk yooyu ak ñaar moom n'importe comment ku ci génnul doon président itam faaw nga faaw nga doon ministre mënut a ñàkk parce que dañ laa seet ba xam ni mën ngaa jiite réew du dëgg yéen noonu ngeen di def proposé ñi ci des ñi nga xam ne nag nee nañ yi waxi tubaab yi rek lañ gëm te moom la ñuy continuer ñoom ñëpp nañu ànd yéen ñi ci des ñëpp ngeen ànd kon léegi mu leer yéen ni ci des ñëpp ngeen ànd ba noppi proposé nag ay élection anticipée parce que ni situation bi dañu mënut continuer amna lo xamné ne kenn du ci xaar ab khalifa du ci dugg sëriñ mënut xaar du dugg ci yoy vraiment ma leen koy wax de du ci dugg de